nee nañ ko pare na at dox na ñaari mbër yi at bi sufle na ndeysaan Boy Pi jiital tànku ndeyjooram quatre fois jiital tànku càmmoñam ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ñu ngi dox jëme wet Boy Pi ñu ngi dox jëme wet ñoom ñaar ndeysaan Boy Pi ak quatre fois at bi sufle na ñu ngi léewtoo attention quatre fois na waaye dalul Boy Pouy Boy Pouy ñu ngi damante baaram Boy Pouy quatre far attention quatre far dóor la Boy Pouy dafa mel ni songo bi la bëgg yëpp attention quatre far dóoraat na Boy Pouy songo la bëgg waaye at ñu ngi xeex waaye quatre far may ko loolu ñu ngi xeex jàppoon nañu ndeysaan ñu ngi dóorante ñu ngi xeex Boy Pouy takk na ko yéeg na ko kot ah Boy Pouy daan na Boy Pouy daan na quatre far ndeysaan Boy Pouy daan na quatre far Boy Pouye daan na Kat Faar ndeysaan Boy Pouye daan na Kat Faar ndeysaan ndeysaan Boy Pouye daan na Kat Faar ndeysaan nice ndeysaan kooku sama plateau mooy Boy Pouye ndeysaan Paa de ma combat booy buy ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay ah ñu la siyaar rek. buy dama bëgg nga ñëwal ma ci combat bi noo bëree ba pare. ah combat gan gi dama koo topp. waaw xeex bi la nag man jàpp naa bëggoon xam naa ne ma ko jàppee naawa daan ah, ngi koy gis waaw. ma ma dox topp ko nag. ma dox topp ko nag. fi mu ne jàpp laa bëggoon. waaye moom si xeex bi la topp daa door nag ma door fayu waaw léegi ma jàpp loxo bi bi ma jàppee loxo bi nag waaw sala sala ko takkee nii sa waaw ma fayu daal ma jàpp ko waaw fii laa ko doore waaw ñu jàppoo ma takk ko nag waaw fii laa ko takke dawal ko ba sa saako ya avant muy génn ma kot ko mu daanu. loolu ëppoo ko doole. non waaye ëpp ma ko doole de. bii mooy si ñaaru combat yi non bii mooy sama premier combat wu ah. waaw léegi lu la mo ne sa kanam. non sama kanam lu gars wax rek. gars yi bëriwul de yow yaay de wa lu gars wax rek sama ñi may and ak ñoo lu wax rek après man. li nga àndal bu ñimé ñimee yow ñime nak non man mom duma ragal mom ah. waaw ko solo fim mu fi mu ne. fi mu ne mom nan ma jox ci gars rek. gars kan. ha gars kan. non mo am nañu tour mom <laughs> nan ma jox ci gars rek. kan nga solo ha kan nga solo ñu lay dégg de ah, nan ma jox si gars yi rek man moom kun ma jox ma ba rek moom waaw du ma delloo avance moom. Hmm, wool say mbokk sant leen. ah santal say mbokk. waaw maa ngi sant waa Bawol di sant waa Kastoor waa Sonde Kaptas waaw son nan si combat di sant gars yëpp ah. sant carrière un ah, ak carrière deux Saval Basé Gamou Gueye Thiaw 3 Léopold. waaw waaw ak laat laat bu booy puy maa ngi koy sant waaw Thiaw seeri Seri Fatou maa ngi koy sant bu baax ko gërëm saay moom combat moom den see son moom di sant di sant Ndama Jon di sant Ndama Jon Nogoy Jon Xadi Nogoy waaw jaari maa ngi koy sant bu ba jaari fay son na si combat moom ñoo fajar la ñëw di toog aññi nag waaw buy tàggatu waaw waaw ndeysaan ñu ngi ci bu ñu ngi ñëwaat ci yow kon nga tàggatoo ndeysaan ñu ngi ci deuxième combat bi ak gaa ngi wax ñoom